Aujourd'hui, il y a une tension qui couvre euh, entre Israël, euh, Iran, euh, ku ci nekk ci ñoom euh, am nga am nga am nga sa sa sa mag bu bu nekk ci ci ginnaaw. Et au centre de cette affaire-là, il y a le conflit israélo israélo-palestinien. Depuis trois quatre mois mu am bombardement yu metti Euh, yoo xam ne mu ngi dal ci kaw euh, ñi nga xam ne ñoom ñooy les les les population de de de de Gaza. Mm-hmm. Euh, umma islamique bi ban taxawaay la ci war a am. waaw may mun a da nga laal lu am solo parce que xëy na umma islamique bi mais lan mooy lan moo war a nekk taxawaayu Sénégal parce que bala nga ni naam ne fa xëy na umma islamique bi mën na yaatu. te umma islamique bi amuñu benn position lu dul nekk ci wetu Palestine en tant que ay jullit yoo xam ni dañoo jàpp ne Israël da leen di jaay doole di leen agressé di leen rey waaye position wu Sénégal historiquement mooy Sénégal dafa mus a taxaw ci wetu Palestine di ko soutenir dinaa la jox tey benn révélation est-ce que xam nga joxoon nañ ko passeport diplomatique gu mu yor ko. Mm-hmm. te yemul ci Yacine Arafat mais képp koo xam ne da nga bokkoon ci kuréelam représenté Yacine Arafat ci Europe bari na ci ñoo xam ne ay passeport diplomatique Sénégal lañ yoroon li histoire wane mooy ba léegi boo demee Nations uni am na kuréel gu fa nekk goo xam ni maanaam dañ fa nekk pour di def di di di xeex ak ak yelleefu Palestine loolu ba léegi nii Palestine nangul ñu dénk ko kenn ku dul Sénégal Sénégal dafa mus a wane position ci wetu Palestine loolu la histoire wane dëpp ca Senghor depuis ci Abdou Diouf ba ci Ablaye Wade moo tax amuñu mënuñu lu dul def leneen moo tax li Israël di def nii ñëpp xam nañ ni du du lu kenn mën a expliquer léegi nag mu des conflit bi dafa nekkoon ci diggante Palestine ak Israël mais dafa déplacé wu tey tey mën nañ ni bu ñuy wax le géant maanaam le Moyen-Orient géant bi dëgg-dëgg mooy Iran tey wala wala même bu dul Iran Arabie Saoudite mais Iran parce que Iran li tax mu am benn particularité mooy Iran du Iran kese que réew mais dafa am ay ay ay Iran yu bari yu la wër yoo xam ne nii ñu ngi ci wetu Israël tey boo demee réew mu mel ni Lubnaan naan nga fay fekk isbola Hezbollah boobu ñëpp dañu wax ni Iran ci boppam moo koy financé yaa ngi dégg boo demee ci urdi yi am na benn mouvement bu fa nekk taxaw ay chiite lañ di ñu ni iranien yi ñoo leen di finance moo tax bi Israël te ndax il faut ñu wax nit ñi bi te ndax il faut ñu wax nit ñi tamit la vraie information maa ngi gis maa ngi gis ci ox occidentaux yi ñu ngi jaxase xelu nit ñi di wane ni Iran riposte la def parce que ambassade bi nga xam ne moo nekk Syrie bu bu bu Iran Israël daf ko bombardé rey fa sept général yoo xam ne ni ay renseignements généraux lañ yu Iran parce que loolu li liñ ci jàngee mooy Israël dafa fexe ba am ay ay ay yoo xam ni dañu infiltrer Iran infiltrer le monde arab di wax di wax euh, di jox Israël ay informations pour wax iranien yi li ñu li li li fi ñuy dajaloo di di di def seeni waxtaan bi mu amee Iran ni ko man dinaa dinaa def riposte bërki démb Iran jël ay ay ay ay yoo xam ni mu ngi ko mu ngi déppale Téhéran dem dóor ko Tel Aviv ñoom nag ci lu ñu wax ci communication nee nag quatre vingt pour cent yëpp dañ ko américains yi ñoo ko intercepté mais Iran moom li ko ëppaloon solo mooy atteindre na objectif Iran li mu bëggoon a def ci bopp Israël mooy ni ko mankat am naa bomb boo xam ne mën naa jóge biir Iran ñëw dal biir Israël. kon loo ci mën di dégg rek tiital na ko léegi nag ndax ndax ah day continuer di riposter wala day yemale foofu affaire bi loolu suñ kanam la nekk en tout cas dégg nañ Joe Biden mu wax ni bu sañoon Iran moom ci boppam ah, ah Israël du day yemale affaire bi fii. waaye li ñu dégg Benyamin Netanyahu wax ko bi mu réunir les généraux nee na Iran lu mën a xew dina fayu parce que guerre boobu li tax ñun ñu war ci bàyyi xel mooy économiquement. daf nañ daf ñu nar a sonal daf ñu nar a sonal parce que àdduna bi dafay dund ay crise yu métti yaa ngi gis crise u Russie ak Ukraine tey buñ ci bëggee teg Israël ak Iran ñu nekk ay géant kenn ku ci ne am sa nucléaire téegu loolu kenn amul intérêt ci moom moo ci war a nekk taxawaayu réew mi réew mu mel ni Sénégal mm-hmm. mooy tëddee njaaxaanaay ak woote jàmm woote dal woote apaisement parce que noonu rek nga mën a taxawe parce que ñaari ponkal yu ñaari kuy yu mbëkkante moom kenn du dugg seen diggante comme Sénégal nag loo mën a wax am na ay relation yu baax ak Iran am ay relation yu baax ak Israël jàpp naa ne li mën a def politiquement mooy jóg dox jàmm parce que Sénégal tamit loo mën a wax réew mu ñu respecté la ci àdduna bi réew mu moom boppam la réew mu am tolérance la ci diine yëpp ak gëm-gëm yëpp ak pas-pas yëpp man fee dund fii tey sit yaa ngi fi su ñu ngi fi donte bariwuñu sunnit yaa ngi fi tarixa ya confrérie yaa ngi fi association islamique yaa ngi fi kon Sénégal moom référence la ci tolérance ci àdduna bi. merci beaucoup waaw. merci beaucoup nag mu nekk conflit boo xam ne nañ yónni yàgg ba xam fu muy waaye daal loo ci mën di dégg Israël moom euh, maanaam il faut mu teggi tànk fi mu ko teg parce que adduna bi dafa changé léegi waa àdduna bi léegi nekkatul ci ni euh, damay jóg rek. di néewal doole di doole. parce que léegi enjeu yi dafa dafa dafa géopolitique bi dafa changé. en tout cas ñuy ñaan yàlla kenn xamul Russie tey lan mooy position moo tax affaire yi. ku mën a si lan mooy position quelle va être la position de la Chine euh, quand il va y avoir euh, une riposte israélienne xëy na bu ñu amoon chance naa la gën a leer xam nga Iran li tax mu mu naqare mu naqare Iran boo xoolee réew mu am histoire la réew moo xam presque def na six cent six mille réew yu mel noonu am taarix am démb lu réew moo xam da ngay ñëw rek bëgg leen a song noonu saax saaxee leen comme ni ñu def Irak mm. te boo xool Irak song na ko fi Iran résisté ko te boobu américain yi ci ginnaaw boo xoolee euh, ay banqaas yu bari yoo xam ne Iran daf ko am di ko contrôler mu nekk mu wër Israël lu mel ni Hezbollah wax naa la ko moo tax conflit la boo xam ne pour man li ci ñi ci ëpp intérêt daal mooy ñu dalal ko narul jur jàmm